ngi ko doon wax sànq tey Kédougou la ñuy dem ak Ibrahima Diabakhate Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la euh, Ibrahima tey fan la ñuy dem foofu ci Kédougou. maa ngi lay fay euh, di nuyu ñi nga xam ne ñi nga bokkal plateau bi euh, tey de quoi est-il ñu ngi fii ci commune bu Kédougou ci diwaanu Kédougou ci biir commune bi. ci quartier Togoro. ñu jéem a seet ñi nga xam ne ñoo fi yeewu est-ce que xam nañu tuuru Togoro bi fan la jógee. lan mooy cosaanu quartier Togoro bi kon ñu dem dajeeg askan yi nga xam ne ñoo fi yeewoo. maanaam quartier bi nu mu tudd. quartier Togoro. nga ne. quartier eh, bi est-ce que mën nga ma wax tur bi lu muy tekki. non non te yaa ngi dëkk ci quartier bi. waaw. Eh, depuis kañ nga dëkk ci quartier bi. non fii laa judd. nga ne. fii laa judd. fii nga judd te xamoo eh, tur quartier bi nu mu ah. waaw. Ah. merci jërëjëf. salaamaaleykum sëñ salaam. quartier bi nu mu tudd. quartier bi Togoro la tudd. Togoro est-ce que mun nga ma xam est-ce que mën nga ma wax ne Togoro euh, lu muy tekki. non à vrai moom ma ko wax dëgg hmm. lu mu tekki. te fii te fii nga juddoo. waaw fii laa juddoo nag xaw ma xaw parce que je ne suis pas je ne togoro bi est-ce que xam nga togoro euh, euh, lan lay signifier li tax ñu koy woowee togoro. non signification quartier bi xaw ma ko nag parce que ñun dañoo ñëw fekk quartier bi quoi loolu mag yi ñoo ko mën a xam. man xaw ma signification quartier bi toogoro bi fu mu jógee ko waaw mais boo ñëwee dëkk ci quartier war nga mun aussi jéem a xam toogoro bi tuur bi du mu tudd. waay loolu dëgg la ah. mais jëluma renseignement boobu quoi. waaw waay d'accord maa ngi lay gërëm kon ginnaaw euh, laaj nañu ñi nga xam ne ñi si bari fii la yeewoo fii ci quartier Togoro. am na li nga xam ne jot nañu ko wax léegi pour ñu gën a mën a euh, euh, firndeel seen wax dañuy dem ci délégué de quartier bi nga xam ne moo nekk fii ci Togoro ñu xam tuur Togoro bi fan la jógee. man maay Gningue Camara délégué de bi Togoro. Togoro waaw togoro kooku wax ay mandinke la quoi comme ay conseil ñoo ko tànn cest soo déggee togoro xam nga am mandinke day ne togoor eh, mandinka mandinka si tool yi ak ko di gaas ñu ne nga taka togoro togoro bi oto la comme dafa amee comme néegi bu tuuti la quoi si tool yi comme su fekkee ne mu ngi taw man ngeen dugg foofu ngeen toog waaw néegi la nga xam ne foofu dañ koy tabaxa si tool yi moo moo tudd noonu togoro néegi bu tuuti si tool yi lañ koy tabax nga kër di foofu kon su ma déggee bu baax mooy euh, euh, genre néegu bu ndaw bu ñu tabax bu ñuy samp ci biir tool yi comme ça bu commencé taw nit ñi ñëw foofu quoi. pour quand même protéger ah kon est-ce que quartier bi fii loolu def fi woon bëri est-ce que togoro yi dañu togoro yi dañ fi bëri woon fii. non non bëriwul comme xam nga ne fii côté bi parce que ay àll ba côté bi ay tool yi ñoo nekkoon fii moo tax daal mun nekk togoro c'est-à-dire ay tool yi ay tool lañu. bu njëkk ay tool lañ maa ngi leen di gërëm di leen sant kon lii lañ la indiloon fii euh, de quoi utilanoo fii ci diwaanu Kédougou ñu joxante dig daje ci ci beneen numéro incha allah. incha allah merci beaucoup euh, Ibrahima Diabakhate en 30 secondes Alaaji Malick ndax 7 h jot na daanaka expliqué na ko wane na image bi tamit mooy li ñu wane sànq muy xaw a nuróog lu mel ni sàq noonu. waaw lu mel ni sàq lay nuróol ndax euh, zone la bu nga xam ne euh, dañ fa doon bay lu bëri. Mm. donc wax baykat wax ni bu fekkee ni góob na dafay denc lu nga xam ni moom lay góob. di ko dundee mm. ba saison bi jeex. Mm. am na fa na campement bu am solo pour ñi nga xam ne dañuy dem Kédougou muy campement la ñeriko boo fa demee tamit mën nga féexlu donc zone la bu xam ne zone bu rafet la Kédougou moom nous tous on est tombé sous le charme de grâce à Ibrahima Diabakhate moom tamit ak image bu rafet yi mu ñuy won merci beaucoup El Hadj Malick 7 h jot na ñu ñëw dem euh, foofu ca Kédougou Kédougou euh, <laughs> ñu ñëw dem RFM RFM ñuy dalal tey jële ci suba <laughs> dama ne dama ne ñu dem Kédougou Amadou Mokhtar Tall moom